Birame Khoudia maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu seen waa rajo bi yëpp. Hmm. Birame Khoudia nga nekk secrétaire général adjoint de PASTEF actuellement société civile bi li ñu bëgg mooy euh, ñu ubbi enquête ngir euh, lépp leer ci mbirum ONAS ci diggante docteur Cheikh Tidiane euh, Dièye ak docteur Cheikh Dieng est-ce que d'accord nga ci waaw wala déet. waaw man de d'accord naa ci d'accorduma ci li ma mën a wax rek mooy ki nekk ci boppum réew mi ak service yi mu jiite nekk nañu ñu nga xam ni lépp lu jubul dañ koy jubbanti kon tey bu fekkee ni am na problème bu mel noonu malheureusement alors euh, mu am ay conférence de presse yu nga xam ne ñu ngi koy def de pare et d'autre alors loolu wax dëgg yàlla euh, leeral baax na ci waaye dama ni bu ñu ibbiwul enquête it dina leer parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye lépp lu mu def koy leeral bala muy dem kon euh, soxlawu sax di tijji waaye tijji bi ça ne nous gêne pas véritablement euh, wóolu nañu ñuy jiite te xam nañ ni li ñu leen dénk dinañ ko teg ci yoon déjà sanction boobu en trois mois ça montre tout simplement que ñii de wax dëgg yàlla dañu fas yéene jub jubal jubanti xëy na sax mën na nekk mesure conservatoire en attendant d'avoir d'autres éléments loolu la ñu donc société civile bu ñu waxee loolu ah bu leen neexee ñu wax loolu mais man de wóolu naa euh, service compétent yi dinañu leeral lépp lu war a leer incha allah. Mhm. Euh, beneen ponk bu am solo am coalition takku euh, dajale lu toll ci quarante partis politique ay ay libéraux ngir jàmbaarlu ak régime bi fi nekk surtout ci élection législative yi ñu jëm yow noo ko gisee coalition bi tiital na leen. waaw dama ko déggee dama di teqet di ree ndax xam nga <laughs> ku bëgg ñu fal la député mais dangay jaar ci yoon sa der rafet sa der set ba nga xam ne bu ñu seetee la nga jot a def wax dëgg yàlla du ñu am lu ñu la reproché ñooñu kon defe naa euh, il frise le ridicule kon tey li ma mën a wax rek mooy coalition boobu daal ah am nañ droit def nag seen coalition xam nga Sénégal moom bu fekkee am na trois cent partis boo nee quarante partis ñoo génn ba yaakaarloog jomaay ana ñeneen ñi man defe naa amaguñu effectif déjà loolu laa bëgg wax parce que parti yu bari ay parti télécentre la boo xoolee véritablement ay nit la ñu nga xam ne waxuma la sax parti mën na tuuti mais ka ka jiite am fulla am fayda am jom waa bu fekkee ni yow def nga lu nga xam ni képp ku pet sa jaar-jaar xam ni lii kat amul benn nga xam ni orthodoxie am na ci nga ni nag léegi da ngay euh, euh, créer quarante euh, créer benn coalition ah ñun ñu ngi leen di xaar wax dëgg yàlla ñun def fañ taxawoon rek lañ taxaw jub jubal jubal ci rek waaw bu ko defee ku ñëw rek fekk ñu ñu ngi gis Waly Diouf Bodian coalition bu ni mel dafa yombal liggéey parquet financier bi naka nga gisee commentaire boobu jàpp nga ni jaar. waaw waaw waaw wax na dëgg wax na dëgg parquet financier bi bu fekkee ñuy topp ñu jubul te coalition ba ñu jubul rek a ca nekk wax dëgg yàlla dañ leen di rombal seen liggéey Waly Diouf Bodian moom saa yu waxee rek lu pertinent lay wax. Hmm. maa ngi koy saluer en <laughs> <laughs> léegi léegi fi ñu nii nag euh, biram Khoudia Lo gars yi comme que soppi nañ règlement intérieur bi comme ni ko PM buggee woon Ousmane Sonko ñuy xaar mu def déclaration de politique général lan moo ko yéexal fi ñu nii waaw déclaration de politique générale de moom am na latitude def ko saa yu ko neexee defe naa dara tënk ko waaye man Birame Khoudia Lo de bu doon sama sagoo ñu tas assemblée bi nga xam ne dañuy ndaataa talax di fecc ak di xeex ak di xuloo bu ko defee teg assemblée nationale bu responsable léegi nag mu def déclaration de politique générale bu ko defee Sénégal yëpp dañ am dañ ci am euh, euh, seetaan di xool waaye assemblée boo nga xam ne bu génnee télé wax dëgg yàlla ñëpp dañuy zappé assemblée boobu def déclaration de politique générale ah mën na ko def de waaye mm. wax dëgg yàlla man li ma gënal ñu tas ko ba pare mu def déclaration de politique générale devant des gens responsables comme les députés de Pastef ndax ñooñu de nañuy doxe que ñëpp doon doxee kon déclaration bu wax dëgg yàlla am kon na kon kenn du bloqué suñu ay milliards ci euh, di bañ a recevoir ministre des finances wala bañ di def leneen te loolu yëpp am na fi ñii dañuy def politique nañ leen fi jëlee. ah mais pourtant euh, li nga xam ne moom mooy DPG bi constitution moo ko sant PM bi. te askan wi am na si droit euh, ñu xam fan ngeen jëme réew mi à travers votre DPG. waaw mais DPG bi dina am ah gisoo ku ñu fal six ñu bari ñu fi def déclaration de politique générale devant ñi nga xam dañ leen gagné barewul di souvent dañuy tas euh, tas mbir indi ñu responsable. dafa yéex. defe naa ñun gën a yéeg ci loolu parce boo demee ba cinquante quatre pour cent weddi la. ba pare ci loolu càcc dafa am ca biir ak njuñ njaaj waaye boo xoolee quatre vingt pour cent weddi nañ leen waaw ñooñu koy nañu tas assemblée bi indi ñi nga xam ni gëm nañ leen wax dëgg yàlla Ousmane Sonko mu sell mi nga xam ni wax dëgg yàlla déclaration ba day mucc ayib kooku bu ko defee mu def ko devant des gens responsables. Hmm. loolu de lu am importance la. man de loolu laa bëgg. Euh, politique de redressement fiscal bi nga xam ne régime mu Diomaye bi teg na ko gis nga ni fi ñu toll nii euh, réew mi ñëpp a ngi jooy na ko gisee. entreprise yu bari. ñu ngi tëj nañu fay impôt yi. Hmm. woo yaay nañu fay impôt yi. man mii enseignant la damay fay impôt guddi ba ci suba ak ngoon. fii koo fi gis gën a tuuti te ñoom ñoo ko ëpp xaalis day fay impôt. entreprise yi nañu fay impôt yi impôt mooy doxal réew. te le patriotisme économique. bu fekkoon ñu ñu jiite jubuñu waaye ñi ñu jiite jub jubal jubanti la ñu wax. kon ku nekk boo nekkoon ci toor it nekk ci lu nga xam ni wax dëgg yàlla yalwul maanaa war nga delloo fi sa xel fay impôt yi bu ko defee xale yi nga xam ne tey jii maa ngi am malade bu nga xam ne ma nga hôpital il faut que ñu fexe ba wutal que n'est-ce pas euh, ay affaires sociaux pour mu mën a fexe ba génn loolu yëpp eh, fa ñàkk fay impôt koy indi mani golo du bay baabun di dundee nañu fay impôt yi loolu mooy doxal réew bu fekkee nag dem nga ba nga xam da nga am euh, problème mën nga dem waxtaan ak les services compétents bu ko defee ñu étaler la wala ñu am nu ñu defee ak yow waaye bañ a fay di wut amnistie fiscale moom mënut a nekk ci Sénégal réew mu nga xam ne dafa dellu ginnaaw situation bi ñu ko fekkee mais ku yoreel bor na ko fay wax dëgg yàlla. mais dañuy faral di wax ni Birame Khoudia Lo trop d'impôt tue l'impôt est-ce que ni ngeen xoojee entreprise yi euh, du dem ba indi marasme économique bu méttee métti ci réew mi. xoojuñu entreprise yi ku mënul bawoo lu yàqu yow a waaye ku mënul bàyyil ñi mën def. ñi mën am nañu fi am kaay yu nga xam ne mën nañu reprendre entreprise yooyu muy entreprise de presse muy lépp lu nga mën a ci nekk nañu déclaré faillite bu ko defee ñu jël entreprise yi jox ko ku mën ku mënul ba woo lu yàqu yow munoo ni da ngay nekk patron d'entreprise te yow employé sax munoo ko nekk demal nga ñi nekk employé nga liggéey ba ci kanam ba am xaalis soogaa mën a nekk patron d'entreprise am na yu ko xam ne mënut a nekk réew dañu war a fay impôt trop d'impôt tue l'impôt ñun defuñu trop d'impôt parce que boo xoolee Sénégal ñuy fay impôt matu sax quarante pour cent or waroon na dem ay soixante dix pour cent c'est ça y a pas euh, trop yi bari na comme ca Lonase ca port autonome bu Dakar ak Waly Diouf Bodian ngeen wax ni yéen bu ngeen toogee si réew mi da ngeen di utal ndaw yi xëy mais fi tool nii sax dafa mel ni da ngeen di créer ay chômeurs. créer yu ay chômeurs lu tax entreprise bi créer emploi day nekk entreprise bu mën a dem ci kanam bu fekkee ni da jël ay nit yu nga xam ne ni jëlee du noonu. man maa jëkk wax ni nañ leen dàq nañ leen licencier mënuñu bàyyi ba à deux mois des élections yu jël ay nit yu dul jeex loolu c'est anormal loolu dañu war a topp sax ñi ko def gannaaw ba ñu dàqee ñooñu kon loolu bu amee nañu taxaw tey jël seen responsabilité heureusement Pape Alé Niang maa ngi gërëm moo jëkk def la muy def euh, Waly Diouf Bodiang waxoon naa ko ni que ñañu jël te waruñu leen jël na leen dàq Toussaint euh, Manga Salika naka noonu euh, ba Cheikh Bamba Dièye planté responsabilité ñooñu ñëpp am nañu ay recrutement yu nga xam véritablement jaarul yoon nañ leen teg fële bu ko defee entreprise bi bu ko doxalee ba mu dox modèle économique bi taxaw dinañu créer plus d'emploi que ñoo ñu jëloon ngi nga xam ni day daaneel entreprise dafa am jël boo xam ne day yëkkati entreprise ak jël boo xam ne day daaneel entreprise ñoom nag jël bi ñu jëloon mooy jël bi daaneel entreprise donc wax dëgg yàlla ñun dañu bëgg teg modèle économique ci entreprise yooyu yu nga xam ne dinañ permettre ñu jël bi nga xam ni jël jël bi nga xam ne dafay yëkkati entreprise ba looloo tax ñu dàq leen. te Sonko mooy gouverner à la place de Diomaye muy kàddu ak euh, Alioune Tine bu Afrikajom Center gisee li mu wax. xam nga lu def waxu te ay di njàmbat. Hmm. am ñoo xam ni dañu daan euh, président da leen daan neexal Macky Sall ñu daan neexal dafa bari. Euh, maa ngi ñaanal Malick Ndiaye ma tëdd ca euh, Touba tey yàlla na yàlla yërëm waaye yu bari ñun xam nañ ko waaw dëkk bi ci lañu dëkk la woon wonni na société civile buy émerger dafay jeex donc loolu xalaatam la fi mu ne yi dafa fees dell place am Sonko fees dell place am bokkul ak ñi nga xam ni ay premier ministre yu daan yapar yapar yi nga xam ni du ñu jël benn décision kii dafa am def démarche de complémentarité maanaam mburoog soow ñu jaxase leen complémentarité noonu la ñuy doxee ñoom lu kii deful kële def ka waaye ñoom lu ñu booloo di def même chose donc loolu day indi efficacité gouvernementale man lool laa gis te loolu la la Sénégalais gis kon Alioune Tine loolu bu waxee xalaatam la waaye man li ma gis mooy ñu ngi dox dox li nga xam ni dafa jëm ci bonne gouvernance parce que complémentarité am na Sonko mi ngi def li mu war a def Diomaye mi ngi war a def li mu war a def damay wax Diomaye il est inaccessible mais Diomaye man bu ma ko bëggee gis gis que alhamdulilahi rabil alamin bu ma ko bëggee woo woo ko alhamdulilahi rabil alamin kon kay tey la ñu war a def ñu ngi koy def Sonko xam na fu muy teg tànkam Diomaye xam na fu muy teg tànkam ñoom ñoo bëgg créer ay wax waaye wax yooyu Euh, le chien aboie la caravane passe du tere ñu gouverner du tere réew mi dinañ ko jëmee kanam incha allahu rabbi. Barça wala Barsaq ba léegi mi ngi continuer même su fekkee Jomaay moo jël réew mi Pastef moo jël réew mi ñu bari foogoon ni su ngeen jëlee réew mi phénomène boobu dina wàññeeku bu baax a baax wala mu jóge fi tey jii la làmbaay gën a ñaaw. Euh, amoon am ngeen solution wala amoo leen solution dina fi jóge dina fi jóge bu ñu gouverner deux jëm trois. waaye mënuñu jël réew mi si saa si Barça wala Barsax dakk bu loolu lii ñuy dem nii ce les conséquences yi nga xam ne gouvernance bu bon bu ñu ñi fi jógee doon def loolu moo continuer ba léegi léegi nag ñun li ñu war a def mooy sensibiliser leen ni leen nañu muñ nañu muñ te xam ne lii yëpp dina jeex donc communication boobu lañu ñu war a def jeex na wante en trois mois quatre mois munoo éradiquer ce phénomène là wala nga wàññi ko day gën a yokk parce que fi mu ne ñun dañu nekk ci évaluation diagnostique di xool secteur d' activité yi la ka tardeel foofu la ñu toll liggéey bi commencé gul carrément donc bu commencé comme il le faut lii yëpp dina jeex au bout de deux ans trois ans waaye mënuñu ko jeexal ci ñetti weer ñetti weer la fay xew mooy la ñëwee tegoon kon jeudi li ma leen di wax mooy nañu muñ te xam ni réew mi dina changé ndax réew pour mu changer ña jiite nañ jub jubal te ñii jub jubal nañu jubbanti bi nag mooy poser problème mais jubbanti boobu allah kulli an dina am parce ñii nekk ci kanamu réew mi ñun wóolu nañ leen. voilà ñu ngi lay remercier biram Khoudia Lo ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. maa ngi leen di remercier yéen it. voilà ñuy fàttali ni biram Khoudia Lo secrétaire général nga adjoint ca PASTEF jërëjëf merci beaucoup.